ay mbokk yi xarit yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen amati nag mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk nee leen nii lay demee ci seen journal de l'arène lépp loo xam ne rek daal dina wàcc ci làmb ji dinañ toog fii daal di ko faram-fàccee waxtaanee ko baaxee leen ko mais à chaque fois rek ma ci ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay amee. yéen looy muuñ léegi. da nga da kontaan rek. <laughs> Ah? ak sa pull da ngaa nii. non no du question liw pile bi du ay liw ak lii. pile bi hmm. euh, pile bi heure bu la neex mën nga ko sol ah. waaw waay même hmm. ma ko jox. ku la ko jox. waaw kii ma ko jox moom kenn la si man. Hmm. kooku moom. la ko wax yàlla na jàmmam yàgg rek. kenn la si man de ñaan nañ ko ñaanal jàmm rek moom moom. a yàlla sa jàmm yàgg kon yàlla sa jàmm yàgg moo ma jox pile bi. <laughs> xam naa daal ku la solaloon na taxaw fii wax ki la solal. waaw kii nag man mën naa tudd turam de. Ah. amul problème aram la tudd jégal naa la ko. aram ma jox pin. Mm. waaw kenn la si man yal na sa jàmm yaay. suma xarit la suma rakk la suma jigéen suma lépp la. c'est bien aram maa ngi di ko ziar moo ma jox pin. jërëjëf aram ñu ngi lay ziar bu baax a ay bokkam yëpp rawatina waa Tallaji bi ñu dëkk sa am na solo waa waaw. voilà mbokk téléspectateurs yi ñu dem seetaan li nga xam ne moo di revue bi daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 6 mai 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy dooreel ko yëglikaay bi di sunu làmb tey mu njëkk xëy fesal bokk na ci ñaari mbër yoo xam ne laalantoon nañ fi ci combat bu metti woon a metti muy Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass mel ni ki nag remak ba wala boog deuxième confrontation ba taxawal nañ ko démb ka ko def nag du kenn ko dul Gaston Mbengue Gaston daal moo fa jaar daal di signé combat ba démb fa nga xam ne moo doon maris ca biir këram daal fa la ñaari mbër yi daje woon ak seen ay mel ni kon daan daal li am ba des daal bu bëggee dégg dëgg day combat ba signé nañ ko démb fañ ko fas yéene tëgg ji nag moom moo di Gambia maanaam drapeau Sénégambia daal la Gaston Mbengue fas yéene dekkal maanaam gën a takkale ñaari réew yi ci jàmmoo ak ci mbokkoo combat boobu daal taxaw na démb moo tax Balla gay 2 nag moom la mu xamle daal ne na ñetti contrat yi mu signé Balla ne na dama koo xeeb maanaam li ma bëgg fi mu nekk nii juróom sax su ma ko amee damay jël ndax fi mu nekk nii moom compétiteur laa boo xam ne sama kanam ci ay combat dama koy signé bëre ndax sama yaram loolu la laaj te damaa sax xiif fi mu nekk nii wàllum combat yu bari loolu mooy waxi Balla gay numéro 2 mel ni ki nag Gris Bordeaux itam mu ngi war a jàkkaar lool xamal na ko ne daal ak lu mën a xew daal sa combat yu bëri yooyu bi nga seq ak man moom jàppal ne du yomb ci yow ndax la amoon bu njëkk muy combat bu nu njëkkoon a daje maag yow jàppal ne boo jàppee ne da nga caa am ndam itam ak noo ko mën a amee man Gris Bordeaux jàpp naa ne daanoo ma ndax nag sama diggante ak yow te bii yoon moom jàppal ne du yomb ci sa côté yow Balla Gaye numéro 2 giri moo wax lu mel ne ki noonu yëglikaay ba tamit xëy na nu xamal ne nu Gaston Mbengue day soo bëggee dégg dëgg ay bëgg-bëggam fi mu nekk nii taxawagul de maanaam daal moom lamb ji ci boppam la bëgg a téye complètement ko tëgg wala boog di jox amateur yi combat ya nga xam ne bëgg nañ ko ndax Ama Baldé ak Gris Bordeaux itam Gaston fi mu nekk nii teg na ca am xelam te itam la mu bëgg daal mooy ñaari mbër yi ñu signé contrat ngir fas yéene leen bëreloo loolu mooy ne nga xam ne ni moom moo nekk fa nga xam ne moom moo ci xëtu suñu làmb ba tey rek kii nga nga xam ne moo di Balla Gaye di Sa Thiès yëglikaay bi ñëw na ci moom ne na moom yaakaaru yaakaar yi la ci ab famille maanaam daal famille Double Less ba mu bokk yaakaar la ca de ci ñoo xam ne ni daal yaakaar nañu ko moom Sa Thiès keneen koo xam ne ni wala ñeneen ñoo xam ne ni moom maanaam seenu combat ko doon xaar mu amum dat boo bëggee dégg dëgg léegi leer na sunu làmb xëy na ñu xamal daal rëg-rëg ak ka nga xam ne moom moo di guy gi combat ba nag waa GFM utal nañ ko ab date fa nga xam ne moo di ca CNC ba le 29 daal la ñu fas yéene nag jàmmaarloo fa nga xam ne moo di ca arène nationale ñeneen ñoo xam ne nii moom date ba tey mu ngi leen tëtik ngir ñu am ko muy tafaatin ak boy ñang moo tax yëglikaay bi xëy tey wan ñu leen ci aw photo ñaari mbër ya ak seenu promoteur muy Pape Thialis Faye ak tafaatin ak boy ñang sunu làmb sam pab laaj ne na ñaar ñii muy tafaatin wala boy ñang kan la ci ki nga xam ne moo di Pape Thialis Faye nar a sacrifié samay wax sunu làmb xëy tey ñëw di ko wax keneen koo xam ne moom am na kombaam bay préparé boppam yëglikaay bi ñëwal ñu ci moom muy gàmmu géey ak ay gumbeem yu neex yoo xam ne daal nu ko bu bindal daal wala boog mu nga ca nekk di wane boppam di xamle daal ñoom daal loo ci mën a dégg ay lebu lañ di fecc loola bu baax a baax a baax moom gàmmu géey yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu yëglikaay bi yemu ca soo bëggee dégg-dëgg ba tey ci biir yëglikaay bi bira seen itam mu nga xëy di wax ci national nationale ba ak 512 sièges yi nga xam ne daal dañ ko faa yàqoon bu bëggee dégg-dëgg daal mu mel ni ki laalaam li am bres daal liggéey ya léegi mu commencé ngir réparé waat loolu nga xam ne ni dañ koo yàqoon fa nga xam ne ni moom moo doon ca lamb ja mel ni ki ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi ñëw na tamit ca la nga xam ne ni moom moo di Modou loo Papa Sow Franc Garga numéro 2 ñii ñëpp ku ci ne engagé wu nga si ab combat waaye Gora Sock moom fi mu nekk nii daa mel ni daal ah gars yi dañ koo fàtte de maanaam daal moom fa mu dugg baaxul de maanaam combat daal fi mu nekk nii moo ko tëj tëj wala boog gisub combat fi mu nekk nii jafe na ko ba tey sunu làmb mu ngi xëy di nu xamal foo xam ne nii wala benn dat boo xam ne ci benn dëkk ci benn parrain ñaari promoteur nar koo seet muy di jamay jamaïcain ak ka nga xam ne moo di jax yëglikaay bi tudde ko télescopas maanaam le 16 mai ñoom ñett ñoom ñaar bokk soo bëggee dégg-dégg muy jamaïcain wala muy jax ku ne nee nga teg nga 3 millions ca Fatick ku ne nee nga sa drapeau Matar Ba de sport nga ko tudde mel ni kon daal yëglikaay bi jàpp na ne ñett benn date ñaari promoteur ña ñaari mise yoo xam ne ñoo tolloo ci benn parrain yëglekaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglekaay ba nga xam ne moom moo di sunu làmb wala boog dañ fay jóge kon dem record record moom lan fa fekk lenn la maanaam ba tey waxi giri ak Balla yëglekaay ba xëy na ñu xam ne daal Gaston Mbengue ah loo ci mën a dégg décroché waat na combat tëggaat na ko maanaam démb ca këram la doon defe lu mel ni ki noona mel ni ki moom Gaston nag loo ci mën a dégg daal Gris Bordeaux moom balaa mu ko signaloo moom laaj na ko la nga xam ne nii moom moo di certificat médical buy wane ne apte na ngir mu mën koo joxub xaalisam ndax gas daa jàpp ne moom du jëlub xaalisam di ko dugal ci lu leerul waaye Gris itam démb ca ndaje ma becc na fa certificat médical am boo xam ne daal waa CNC ñoore wàllu wér-gu-yaram nga ñoo ko defal bilan général xamal ko ne apte nga ngir def sport bi nga xam ne moom mooy sport de combat di lamb mooy ni kon daal mbir fi mu nekk nii leer na nañ ba tey yëglikaay bi di mu ngi ñuy xamal daal nee na le 29 août moom ku yebu te xam ne bu ñu ca yeggee jàmm rëg-rëg ak guy gi arbitre dana soufflé génn seen diggante ñu bëre mel ni ki nag ñoom ñaar fi mu nekk nii yëglikaay bi di record xamal nañu daal buntu VIP ya maanaam combat boobu moo leen koy ubbil le 29 août moo xam guy gi la wala rërëg ku ci am ndam moom soo bëggee dégg dëgg moom maanaam xaaral buntu VIP ya day dal di ubbeeku boo amee ndam leneen loo xam ne nag moom bala noo yegg août le 27 juin lay am ci arène nationale muy komba boo xam ne saara moo koy bëre ak Arsenal combat ba nag la ca neex mooy Moodu Anta mu arène bi Moodu Anta mu làmb ji Moodu Anta sama rakk ji sama xarit moom la ñu tudde boobu bés yëglikaay bi xëy na tey ci tuus yi wax nu lu mel ne ki noonu kon gars yi bu leen ko fàtte de maanaam Moodu Anta a ngeen xam di reporter ne ci lamb ji nekk arène bi point com wala arène bi TV moom la ñu tudde drapeau le 27 juin arène nationale saaraa koy bëri ak Arsenal olof ne na pittaxu xati ay mbokk lañ ndax la ko boolal gomis ñoo bokk bi yeel Aïcha am na solo bu nekkoon revue bi baaka la wax ci pittax. pittax ak xati dama ne ñoo bokk. waaw loolu la xati déjà. xati comme pittax la rek sorante wuñu xam nga pittax. waaw xam naa pittax moom. moo xati sorante wuñu xati boo demee àll ba tey si garabu ron yi xati tamit picc la. waaw hmm. ci garabu ron yi da nga leen di gis fa la ñuy faral di dëkk souvent. Hmm. bokkuñu ak pison yi ñu yar ci kër yi ba tey xati am nañ différence xati pitta ak pison am nañ différence mais ñoom ñëpp benn race bi la rek mais am nañ ay différence quoi dama ne nag ñoom ñoo bokk bi yel maanaam nit mbokkam foofu laay hmm. waxee maanaam Modou Anta suñu rakk suñu frère bu hmm. nekk arène bi point com hmm. moom la ñu tudde xam xam ne ah suñu rakk la suñu xarit la te itam liggéeyu Equivox bi daf ciy jàpp bu baax a baax di jàppale promoteur yépp ci làmb la ñu baax na loolu am na solo mhm. voilà ñu daal di ñëw nag ci li nga xam ne moo di JDA bi euh, suñu làmb lañ koy njëkkee tey ci xëtam bu njëkk lañ fa fekk rek moo di ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux fële ca bi ñu ngi naan nag kii di Balla Gaye nee na je veux cinq combats Euh, cinq contrats sax la wax je suis un compétiteur mhm. j'ai faim maanaam dafa xiif moom cinq contrats la bëgg <laughs> kii Digri nag nee na ko j'ai toujours contesté cette défaite je fais victoire par ko mooy dóor mu daanu kawoo rek <laughs> waaw loolu daal li ñu siy def mooy <laughs> uh-huh. jërëjëfal ki nga xam ne moom mooy le promoteur le Don King de l'arène comme ni ñu koy woowee uh-huh. muy suñu papa Gaston Mbengue moom mu tëgg combat bi uh-huh. moom moo ko taxawal démb fële nga xam ne maris sa këram mu nekkoon moment yoo xam ne neexoon na trop parce que ñaari mbër yaa nga foon seen ay manager mu nga foon muy père Bab mu yore Balla Gaye ci côté management ak Khalifa Jabi yore Gris Bordeaux ci côté management mhm. ak presse bi mel ni kon loolu moo lay wane daal fi nekk nii père Gaston moom ah loo ci mën a dégg mu ngi doxal mhm. te itam ni nit ñi bëgg ci làmb mu ngi koy indi di ko jox mhm. sénégalais yi ndax Gris Bordeaux Balla a Léopold Senghor dañ ko defoon gisee fermé. stade bi fees dell. jour bi ñaar ñi doon bëri rek wallaay Gris Bordeaux Balla Gaye kera dañu tëj stade Léopold ah. Senghor ndax feesaay Luc Nicolaï moo tëggoon bés boobu ah, tey bu ko Gaston indee te mhm. combat ba na mu jeexoon ci avertissement la jeexawoon mhm. defe naa ne Balla moom lu la waay mën a wax ah moom moo yóbbu ndam la mhm. te ndam itam noo ko amee ci biir géew rek baax na la moom de sàcc ko te sàcc ko règlement moo ko jox par mhm. ay avertissement yu xam ne Gris moo ko gën a bari mhm. le mu li mu bëgg mooy daan ko ba toog ci kawam xaar photo na maamam daan wax foo de duusu ba ne loolu la bëgg ci biir combat loolu la ci bëgg daan ko ba toog ci kawam di photo waaw ne kaay la ñuy photo <laughs> bu ko defee ñoom gomis photo kii photographe Gris itam ne ne dóor mu daanu la bëgg waaw moom itam parce que li tax mooy combat ba moom itam dafa metti woon trop trop ci moom keral mm-hmm, mm-hmm. parce que defe naa ne mooy combat bi ko monsieur doon balake naan ko nii ci ah, presse ah, <laughs> la woon boobu la woon kon Gaston meeg na indiwaat na histoire vraiment combat bu dara neex la bi <laughs> am na solo mm, bu njëgee foofu nag Père Gaston moom yaram bi dafa tàng nee na euh, bëgg na taxawal diggante Ama ak ki nga xam ne moo di Gris tamit Père Gaston waaw Père mm-hmm. Gaston moom xam nga moom yaa ma gën a xam Père Gaston moom mooy làmb wax dëgg yàlla parce que tamit ami nit ki loo ko olof ne loo bañ bañ lëkk mhm. faw nga waxal ko guddi noppam ak mën a dawam dëgg la Père Gaston ba tey mhm. du at yu ndaw dëgg la nit am na fi lu ne ci mhm. teraanga nit juddu na fi nekk fi lu ne 92 est-ce boobu nag mu ngi la commencé tëgg làmba ok ba ñu ngi tey 2021 yàlla na fi gën a yàgg defe naa kon lu mu def ci làmba rek du bett kenn mm-hmm. su ne dafa bëggaat giri ama itam dafa naa xel war na ko nangu mm-hmm. te itam li ma la wax rek lu mu deful fi mu ne ci làmb moom maanaam mm-hmm. combat boo xëy gis ne taxawal na ko bu mu la bett dëgg la parce que xam naa ne bëgg na mbër yëpp mhm. mhm. ñu koy ñaanal rek li nga xam ne mhm. ko ko bu ko defee làmb ji jëm kanam promoteur yi la ngay def mais wax dëgg yàlla koy nuyoot en passage xa suñu père nag parce que des fois ñu xaw ñoo <laughs> ah. takki de mbalak ñu xam nga mooy loolu mais nag vraiment damay gis ci moom kër yi loolu dama ko bëgg si nit nit la koo xam ne li ne si moom da koy wax nii mais après du jàpp waaw xool bi moom vraiment xam naa dara newu ci loolu moom may seede la yàlla mi ñu tim xam na ko ñu nuyu doomam Makan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër ñëpp suma turóon doom Mbaye Fall ak ñoom mhm. Abdoulaye Ndiaye mhm. waaw dëgg la bu ñu foofu nag ñu jàll ci ki nga xam ne moo di doomu Double Less bi di euh, rakk ci Balla Gaye 2 mhm. journal bi xëy euh, euh, addu ci moom rek ne Sa Thiès espoir et désespoir d'une famille maanaam dañoo dafa nekk benn espoir boo xam ne tamit. désespoir désespoir mooy contraire espoir. waaw yaakaar boo xam ne. Mhm. contraire espoir yaakaar la. Mhm. waaw loo ci mën a dégg daal xam naa ne yaakaar la man daal loolu laa la man a wax. Mhm. ndax li tax mu doon yaakaar di doomi Double Less. te mu ngi ci làmba. wane mu ci dëgg yaafuus moom Sa Thiès. ndax yàggu ci te marqué na ci empreinte am. tey fu ñuy tudd ay morom yi mu kalaasool ci làmb tudd ko fa. la preuve mu ngi tey ci làmb defe naa ne. ah bi mu mujj bëri nag ci defet la jóge digganteem ak Boy Niang mhm. te loolu mooy sport waaye terewul marqué na empreinte am mhm. kon defe naa ne ay mbokkam itam ah war nañ ko mën a yaakaar te itam mhm. xalaat naa ne li bal la def di magam mun topp ci ginnaaw ñu bokk ndey baay xalaat naa ne narta ba xalaatu la mu jëpp puso bi ah, mu réer waaw am na waaw ndax Balla dem na ba nekk roi des arènes kon kooka xam nga ne kon mën nga ne yegg na moom xëy na loola dese na ko ah, li ci kanam raw li bët am na combat nag moom Moussa Ndoye ñu yónnee yàgg mm.

ci biir groupe Futur Média defe naa nag mhm. lii moom la ñëpp doon xaar ah. mhm. régulariser combat bi tey rëg-rëg xam na ne level 9 lay bëri guy gi xam na ko léegi nag seen planning dañ koy mën a defar pour xam naka la ñuy entraîner defe mu nekk combat boo xam ne mhm. maa ngi wax nit ñi nañ ci bàyyi xel combat rëg-rëg guy gi bi combat gënu ko rëy de lu mel ni mi di la ndax combat jànq la te komba la boo xam ne lu nekk ci man a am bis bi lu ne mën naa am ci combat Reug Reug guy ah, parce que ñoom ñaar ñëppay dóor ah non waxuma sax xale yi bëri nañ doole ñoom ñaar dañu nekk ay mbër yu ay ay mbër yu dogu mhm. dañu bëri xadar tamit waaw bëri xadar <laughs> guy gi surtout ah, voilà bëri xadara moom ay <laughs> combat ñoom ñaar kim mhm. muy guy gi muy Reug Reug ku ci yaakaar ne mhm. ah am na lu yóbbul sa moroom ba tax nga am loo foyee ci combat bi. bu keroogee loolu combat bi laa tuddee combat <laughs> am naa doole am <laughs> jeex na ami doy na waar yaa ko laal. <laughs> Euh, yi nga xam ne ba tey rek wuñ ko fële ca CNG. Mhm. Euh, Thialis va-t-il sacrifier Tapha Tine wala Boy Niang. maanaam ba tey régularisé ko. Mhm. ku muy sacrifier si ñoom ñaar. Mhm. wala du leen sacrifier. yaakaar mu ne am na xalaatu sacrifier leen parce que moom mi leen engagé. taxaw woo leen ñu ñëw. mu signé ak ñoom ay contrat mm-hmm. noir sur blanc wala blanc sur noir <laughs> nuñ ko ci mën a waxe ah ku nekk signé say agent signé wala say manager mm-hmm. bu yëkkati xaalis joxe defe naa ne bu doon pour sacrifier la xanaa du jël ay millions di ko joxe moom Pape Thialis Faye mm-hmm. li mu bëgg xëy na muy tëgg ko am ñu ngi koy ñaanal nag mu am date parce que tamit moom dama naan dafa jara jaajëfal ci làmb et puis dafa jar a jàppale moom Pape Thialis Faye parce que xam nga lu tax euh, dafa am benn moment boo xam ne làmb amoon na tuuti jafe-jafe mhm. ay promoteurs ngi fi woon ah, mais terewul moom jamono boobu mhm. la woon Eumeu Sène Bombardier mhm. ak yeneen combat Diène Kaïré Marley ak yeneen combat jamono bi mu ñëwee woon mu ñëwee am na fu mu bëri lu mu yokkaloon làmb jamono bi moom Thialis kon defe naa tey ñun liñ koy ñaanal rek mooy combat bii mu taxawal muy Tapha ak Boy Niang yàlla na am date mu tëgg ko te réussir réussir ko à cent pour cent di ko nuyu di nuyu waa Leewtoo yëpp rawatina suma père tonton Diaw mhm. ak Aïda Diouf maa ngi koy mhm. nuyu taalib suñu Babacar si mhm. ak képp kuy liggéeyee fa nga xam ne moom moo di Leewtoo ku mel ni Modou Maana tamit du ko fàtte mais Thialis daal yàlla na am date te tëgg combat bi te réussir ko ay lébu lañu pire Gamou Gueye mu ngi xëy di ko di ko ndamoo moom. di ko fecc gumbe macha allah am na <laughs> ah, ah, ah, am na solo. waaw Youssou Ndour noonu li nga doon soo ko bañ a fekk nga gën saa na moom kon Gamou defe naa bokk dee ko la bokk <laughs> lébu piir la uh-huh. defe naa tey boo demee sa jolaaya am na lu ñuy def séréer sa noonu uh-huh. njaago yo noonu uh-huh. xeet bu nekk rek am nga seen ay cosaan yi maam lu ngeen moom yoo xam ne nii bu ngeen ca yeggee da ngeen koy def loolu ñun xam nga lan la ñuy fecc bayin bayin xam nga bayin Ah, man de mbayit laa xam nga ngel dooy dégg ngel xam naa ngel ngel ak mbayit ñun ñoo ko moom mbayit ak njuub ak njuub may séréer sant joom dëkk la ca diggante ndondolak ak yaay <laughs> ah. jàpp mbomboy kon baax na laa jógee man séréer cent la Babacar ah, buñ jógee foofu ñu jàll ci ki nga xam ne <laughs> euh, ñoo di wax parcelle ñu gis ne Modou Lo Papa Sow Franc Garga 2 ñoom ñëpp engagé nañ am nañ ni combat mhm. waaye ki nga xam ne daal moo di Gora Sock moom lañ fàtte ah waaw xam naa daal dama yaakaar turam a yegg seegul waaw góor a soog waaw parce que itam mbër la te defe naa ne doon nañ dox ay combat fan yi passé xëy na dafa sotteegul rek waaw waaye loo ci mën a dégg daal ah euh, xam naa ne turam dina ñëw waaw yàlla baax parce que mbër la. mi la bu euh, ñu nga xam ne nag moo di euh, Jax ak Jamaïcain ñu seetlu na daal seeni date même date la. montant ba ñu teg foofu ca Fatick benn la drapeau ba kañ ko tuddee benn la lu <laughs> fa demee noonu tamit doy na waar loolu ah. moom maanaam euh, ah, xaw ma lu ma demee télescopage boobu dama yaakaar ne mhm. bu fekkonte ne yëgoo am na lii du war a mën a am parce que lii am lu leen njëriñ ñoom ñaara ah. dëgg la amalu njëriñ Jax amalu ko Jamaïcain parce que ñoom ñëpp dañuy servir làmb mhm. kon defe naa li ëpp solo mooy mënoon nañu waxtaan. Mhm. bu fekkonte ne yëgoo am na. Mhm. yaa ngi dégg olof ne na yéen kati xëddin dañoo yëgoo. bala ñoo yëkkati. Mhm. ñoom ñoo bokk lamb yi c'est des promoteurs. il fallait ñoom ñu xam ne ay frères lañu. ñu jàppalante te yàlla tax. lool daf ciy baax ku ci jubut bés say moroom taxaw jàppale la. ba nga réussir sa bés mais loolu dina naqaree tamit de. waaw non parce que loolu day metti parce que ah, tey bu fekkante ne biir Fatick la. nga dem Jamaïque teg fa 3 millions teg fa 3 millions drapeau Matar ba. Euh, bu keroogee kenn xam lan lay nuru ah, defe naa li gënoon mooy ñu waxtaan balaa ñu caa yegg kenn ki bàyyi. Mhm. nga kenn ki ñu def après ñu poussa mhm. beneen yoon ku amaat dat tëggaat fa defe naa loolu day man man Babacar la gën a gis quoi. moo gën xëccoo beeg télescope loolu amul benn sens quoi vraiment. bu ñu foofu rek euh, ñu daal di jàllaat ci nga xam ne moo di suñu père Gaston moom ne dafa exiger li nga xam ne moo di certificat médical u Bordeaux avant ñuy signer contrat bi. waaw parce que da nga doon dégg nit ñi di wax que li Bordeaux parce dafay amoon problème ak mhm. courant bu ko bu maasoon. Mhm. yàlla mu faj woon ba yàlla defal yaa ngi dégg sport de combat la ñu ne mhm. yaa ngi dégg ki dafa war a apte ci mhm. côté yëpp pour doog a war a mën a signé risque la sax tamit nag voilà moo tax Gaston loolu mu def tamit mhm. xel la te xel nang na ko ngir itam démb defe naa ne image yaa ngi fii ci Equivox di ngeen gis certificat médical bi Gris Bordeaux waa CNC médecin ba fa nekk moo ko xool mhm. bilan général la ko defal mhm. wan ko ne apte nga pour def say compétition mhm. moo tax démb bi mu ñëw mu ëndaale kayit boobu moo yoone ne kon daal loolu moom féete na boru leer na nañ li ñaan yàlla daal mooy fekkete tal macha allah am na solo ñëpp yàlla ko yàlla defal euh, lan moo xewoon Equivox Equivox mooy li amoon démb foofu rek kër Gaston Mbengue mu nekkoon jotaay boo xam ne macha allah neexoon na trop. Mhm. ci ñaari mbër yi ak ña fa dajoon ci waa làmb. di nuyu ñëpp mais di ci ku mel ni Abdou Aziz Ndiaye tamit maa ngi depuis Makkatal Mukarrama. Mhm. Alamine maa ngi koy bu baax a baax. Mhm. mais tamit démb ku ne xam ne ne Idaali ñi ngi defoon na fi benn face à face. fii ci biir équipe wax su direct la woon. mu doxoon ci diggante Dab Daan ak Mbaytin ñoom ñaar ñu war a bëri mois de mai drapeau soxna Aminata Assome Diatta ministre du commerce et des PME mhm. kon defe naa loolu tamit nañ ci bàyyi xel date la boo xam ne mhm. day ñëw ami mhm. voilà solo euh, xibaare jaaxa ndar keppe de ah. ndar keppe waaw mais dama am lu ma gis fii tey ci ci ginnaaw lu la fi intéressé waat waaw lii intéressé na ma de lii xoolal lii Franc Tyson Garga 2 Mama Lamine Garga 2 Noiro Moustique Moustique lii xam nga kañ la dafa mel ni kii bi la de nu mu tuddati. nu mu tuddati <laughs> yow nga tëgg làmb xamoo sa date. waaw pourtant dama ci ñëw de le 9 juin. g bi. waaw falaa ñëw de. le 9 juin. Hmm. baax na kon moom la de mu ngi nii baax nii de moom. Gomis. comme li nga ko waxee noir sur blanc. noir sur blanc label bu mag bi Vox Arena. du mën a ñàkk lii dañu indil amateur yi de. kenn du ñëw <laughs> drapeau docteur Macoumba Diouf. am na solo drapeau Alaaji Papa Dieng. Mhm. drapeau Ousmane Noël Dieng. Hmm. ay drapeau ay drapeau. waaw loo ci mën a dégg ñoom Vox Arena tamit. ah du ñu yor waaye ci pël yi lañ de. am na lu ñu def de. la nit ka doon wax kuy dóora mën kuy saaga. waaw non parce que li li am solo daal mooy. Mhm. def rek jëf rek a takku. te itam vraiment man daal du waxuma pour jeter leen ay fleurs pour nu ma fi nekk de. Mhm, man du ma waxee foofu. Mhm. jamais parce que amul ku ma ko jaral. mais man laata ma fii ñëw. laata may ñëw fii di fi liggéey. fekk na ñun ñu taxawal combat yi. te ba ma ko déggee. dama ne alhamdulilah dama ñaanal ñi taxawal combat yi muy Vox Arena mhm. boobu sax xaw ma waa Vox Arena boobu kii ma fi xam hélas laa fi xam ak mm, Cheikh Omar mhm. maa ngi koy nuyu depuis Paris la mhm. France mais vraiment daal seen tournoi C5 bii ñu war a def le 9 juin moom di mercredi. Mhm. ah li ma kee law bakkan bu sunu lamb wax na ma ko. waaw leneen tabaski lamb la. tabaski lamb la de waaw ah. lii tabaski lamb la kon nañu xott nañu xotti solo. waaw ba <laughs> yaa nga ca biir. incha allah bu ñu fàtte. Mm. lundi. Mm. ak reporter yooyu seen président dina toog fii Bour Guéweul. Mm. ak Lamine Seck bu Lutte TV. ñu def première émission numéro bu njëkk. ah Arena Hebdo. am na solo. 100 pour cent lamb lay doon. macha allah bu ko kenn jaawale. jaar fan ndar képp. kontaan si yow. mais di bég ci ki ma solo ah ba tey di bégaat ci moom. kon kontaan nañ. yàlla na jàmm yàlla kontaan continué waaye kenn du Omar Tawa. Ah, kenn du téléspectateur yi tamit. ñoom kenn day ñoom téléspectateur yi bu ñoom léppay am na solo ñoom yàlla na leen yàlla fay. amiin waaye tey Babacar damay nuyu ki nga xam ne nag moo di Abdoulaye Dembélé nekk foofu ci Espagne a chaque fois daf ñuy bégg nee na ma dama lay seetaan yow Babacar macha allah seen liggéey rafet na. noonu ah. ah tey laa koy doog a tudd de bokkut ak Mamor Babu. ah ah <laughs> Gassi. da ngeen a bëgg jabar